فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa sahabatihi algurri almayamin wa ala xayri xadimihi di lhabli almatin wa ala man iqtafa atharum ila yawmi ddin mbokk jullit di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bi ñu sante sunu borom subhanahu wa ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal Cheikhul Xadim ñoo ngi leen di nuyu di ci weer wu tedd wii nu tàbbi di rajabul fard di weeru màgg wu tedd wu bari ngëneel weer wi nga xam ne ci lañ rañaane woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ko masjidul xaram dem ce baytul baytul maqdis baytul aqsa daje fa ak yonent yëpp waaye ci la def mi'raaj itam dem ci juróom-ñaareelu asamaan daje ak boroomam ñu fa jëflante yu bari te jëflante ca bokk ce jox gi ko jox julli juróom loolu ne mbir mu màgg mu tedd moo xam ne lislaam gépp ko bokk waaye nu amaati na sunu jagle bopp muy feeñu Cheikh Mahamadul Fadil ci weer wi ci bisu boobu muy guddig ñaar fukk ak juróom-ñaar ñaan sun borom mu defal nu nu màng mboolem ngëneeli weer wi yépp ak xéewalam ak barakaatam te yàggu ko fekke ñaan Cheikh Mahamadul Muntaxa ma ne ci bopp yoon yépp yàlla yokk ko fan ak wér ba ma àggale mboolem ay naalam ak yéenam a njaboot Sëriñ Tuubaa gépp su ko defee ajjuma ji weesu dafa mel ni nu nga woon ak yéen ci fi jamono toll ci lenn ci yàqute jikko yi ba tey génn ñu tomb booba moom la ñuy wéyal ñu ngi tolloon ci di wax yàkkamti gi ndaw ñi yàkkamti seen àdduna ba tax ñuy dugg ci lixóor yi ñu war dugg Eh, topp yu yomb yi nga xam ne xëy na comme ma ca nekk ak tout tax na ñu song ko te dara dëppu ca diine lislaam dara dëppu ca diine dëppu ca ngor loolu dañ ci delsi waa ñu xam nag yàqu-yàqu yooyu lu ci bari raam na ba agsi ci dëkk bii nu nekk muy Tuuba ñu fàttali ne Tuuba dafa am lu taxoon borom sanc ko dëkk bu ñu sanci xaalisan li wacci llahi taala ibadatan lahu wa xidmatan rasulillah salaa sallam wa tarbiyatan lil atbaai wa taksiyatahum boo ne benn ci tubaa doogaanu ñaar dëkk boo xam ne borom ki ko sanci jëmmi yàlla dong dong dong tax mu sanci ko ngir jaamu ko fa liggéey fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liggéey bu liggéey bu fees bu wér waaye tarbiya mbooloo ma fa nekk defar seeni xol defar seeni jikko bañ nekk jaami yàlla yu ko ma sëkk ay jaam yu sell tey sellal tege ci aw yoon wa nekk dëkk boo xam ne ku fa ñëw da nga war a soppi ko summi mbubu ma nga soloon feneen sol meneen mbubu ma dëppoo ak mbubu mu dëkk bi loolu daa mel ne dañ koy bëgg a fàtte la seer bu faal ne woon suñ Bàmba ka mën ñag ñag na dëkkam bi ba lenn luy ruur mënta bëtt ñag bi tàbbi ci waaye damay ragal nag ëllëg la koy róoru juddoo ci biir biir ñag bi wax jooje nag lu dëgg lu fees la ñu xam ne dëkk bi dafa Tuubaa du Ndakaaru du Kaawlax du Mbuur Tuubaa dëkk boppam la boo xam ne dafa am aw doxinu boppam ku fi nekk war a tënku ca loola war caa dox am melokaan wax day wuteeg melokaanu ka dëkk feneen bërki démb ci àllarba ji bi ñuy julli gee ñuy julli xamuñ li ñuy julli ndax ay yoox te dara walu ko lu may a football dong am am po caaxaan te Sëñ Tuubaa lim gënoon a bañ may ampo po la fi xew waroon a xewe feneen fu dul ci Tuubaa dëppoo te ngor dug taalibe duy taggin koo xam ne fi nga dëkk diggam ak fii sëñ fii la sëñ Tuubaa nekk ay mètre rek la ta nga ne moom nga yaakaar jàpp ne boo ko gisoon lépp loo xam ne doo ko def loolu rafetul nga di ko def te dëkk bépp doon riir akum yoox ak i yoox te am po am po ak caaxaan képp ko tax a du jóg suñ waa musta musta masla ci mpo lu toon lii day ci we kuy fa am akum mpo musu jaa masla njabootam gi naka jekk loolu lañ doon sàmm si Abdul Ahad tàmbale ci Cheikh Modou Moustapha ñi fi jaar ñëpp ba ci Cheikh Modou Mountakha mi loola lañuy ñuy sàmm muy muy muy ndono loolee nga moo moo taxoon Sëñ Tuubaa ci dëkk bi moo taxoon mu def fi fi def nekk dëkk boo xam ne dafa yéen mu nekk dëkk dëkk bu ñu jaamu yàlla di fa sellal ku fi dëkk mucc lore seytaane ak gàllankoor yi gàllankoor diggante borom yépp mu nekk suuf su barkeel yitam soo xam ne lépp lu fi waay jëf dañ koy ful su dee jëf ju sell la ñu ful ko mu ëpp boo ko defee woon feneen waaye soo fi jëfee jëfi safaan dañ koy ful ndax barkeelu dëkk bee tax kon ku ne war a moytu ku ne war a fegu waaye ki dëkk Tuuba dafee da cee raw nag ki dëkk Tuuba mbaa ki ñëw Tuuba gannaaw dañoo gàdday sunu suufi maam ne sëñ Tuuba li nu bëgg a dëkkal bàyyi sunu lépp ñëw fekk si ko lay ngor ci nun tam tam tam jinu tam jinu ngor goo xam ne wóor na nu mun nu koo mun nu koo fay kon lañ koy delloo njukkal mooy nekkal ko ci ak bëggam lam rëdd la fa mu tegoon tànkam yar ca njabootam yar ca ay taalibeem foofee ku fa nekk boo tuddee ne ab taalibe la itam da ko tuddoo rek way nekkul ci yow te ak taalibe rek na mooy lu nu mën a jariñ sunu tey ak sunu ëllëg moom képp la nu mën a delloo njukkal sëriñ Touba amul luñ ko mën a faye amul dara luñ ko mën a faye loolu nekkal ko ci bëggam gii sàmm ndonoom li wéyal ko te bàyyi nag caaxaani tubaab yi nga xam li nga xam dañ dañ ko indi rek muy ay caaxaan yoo xam ne tegewul fenn du dara loola loola wër wër wërti fis fii ci dëkk bi di Tuuba nan ko loolu ndaw ñi maa ngi leen ko bàyyi loo xel bu baax a baax a baax a baax ak ci mag ñi ndax la ci ra la ci ra am looy ji ndaw ñi te fekk mag ñaa ngi ci mag ñaa ngi li ci biir kon ndaw ñeeg lenn ci mag ñi kon ñu ngi leen di bàyyi xel loolu ñu xam ne Tuuba du Ndakaaru du Mbuur du feneen dëkk la bu sell bu tedd bu màgg bu làmboo ngeneel yu màgg màgg màgg màgg te ko fii nag jalgate mën ngaa yàqule te doo ko yëg mën ngaa yàqule doo ko yëg nan bàyyi xel bu baax a baax su ko dee loolu lu doon tàmbalee la ngir rek xan am na lu metti te itam kilifa yëpp nag ci lii am ci barki dem ci ji te noo noo ngi ragal mu amaat nag ci bis yi ci kanam ndax la tax ñu ko def jeexagut kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax xam ne Tuubaa lañ nekk te ko bokkut feneen soo ñëwee nag lan tolloon ci yàquteg jikko yi tolloon ci di leeral ne ndaw ñi dañoo yàkkamti seen adduna ba tax ñuy dugg ci lu ñu wata dugg dañ xam ne ndaw teela a sotti jigu ko ndaw teela a sotti jigu ko Cheikh Mahamadou Fadil da daa wax ne toq dàkk yurit pëng wërsëg aku fan ñoo tolloo ñoo ànd fu sa wërsëg mate saw fan mat wërsëg fu mate saw fan mat sëñ Fall daa wax ne toq dàkk yuréet pëng mooy sa wërsëg bu dee toq-toq di ñëw ndànk-ndànk day day day sax dàkk mooy day yàgg waaye su ne yuréet na pëng benn yoon jeex nag soobaa nag da nga dal di jóge sa lépp de saw fan yi daal mat

واشهدوا أشهد أن محمد رسول الله أشهد محمد رسول nekkoon ndaw teel a sotti jigu ko kon Cheikh Abdul Ahad daa wax ne ndaw tëll li jigu ko su ne tëll rek ne dagaj su ne rek ne dagaj mooy ndawul teelu fëll ci maas teel a sotti lépp mbat neen nam ñëwee noonu lay delloo du fi taxaw ñu xam ne itam mboolem lu yàlla daa alage aw xeet bu njëkk lépp nit ñaa ngi koy def nii fi ne nii mu daj kàpp àdduna moo jur musiba yi di xew yépp coronavirus bi jaaxal àdduna loolu dong ko waral mbënn mu metti mi faral di am ci biir nawet yi moom dong ko waral yëngatu suuf si yëngatu ci yenn yenn réew yi tam bari lool mbon gu bari mbon gu bari gi sabab si bàyyi ko xel te su mbon mbon gi day fés na ci jéeri jeeg ci géej gi waaye lépp maa kasaba tey di nas lépp nit ñaa ko fàggu ci seen loxo li yudiqahum ba'da llazii amilu la'allahum yarji'uun la cay la cay feeñ na ci ay ay fitna ak musiba tuut la lu leen yàlla mosal ca sawbus la seeni loxo góob ngir rek ñu dellusiwaat ci yàlla saabu fit na wàccee nañu xam ne du fay suñu borom bu doon fayu kenn du des ci kaw suuf wax ne lépp lu leen dal ci musiba yéena ko yéena ko ci seen loxo teewul wa ya'fu an kathir la waxaat foofa teewul yàlla jégal leen lu bari jëlee lu bari bàyyi lu bari waaye su leen toppoon kenn du fi des yépp salaasu junjoon junjoon yoo xam ne dana ñëw mujj jamono yooyu yëpp fi mu toll ñu ngi ñu ngi ñu ngi jàkkaarloo moom te maa nazala balaa'un illa bi dan wala tawba amul benn balaa bi wàcc lu may bàkkaara ko sabab waaye dee si ko yëkkati lu may ci ak tuub ak jégalu yàlla gu moo tax bi doom ja aadama jëlee engagement bi mu jël ci inna aradu naaja mooy la ñëpp gant moom mu ne moo ko attan bañ jox ko ko la suñu boon daan la aji mooy fas naa yéene mbugal nag képp ku na naafiq tey góor mbaa muy jigéen ak képp ku ci bokkaale tey góor mbaa jigéen waaye dinaa jéggal nag ña ña ca sellal day julit ci góor ci jigéen te feex gi mooy nangu ne yaa ko àttan engagé ko ba noppi nag rafetaloo ko suñu boo wax ne su fekkoon jàppee ne nit ñi seen tooñ maanaam jàpp nga xam mooy mooy fay goon wax maa taraka alaa zahira min dabba kon kenn des ci kaw suuf soleen leen seenu tooñ nee na kenn du des ci kaw suuf waaye lu ñu fitna ju ñëw ju nekk nag ak mosal la tuuti ci lenn ci li nu jëf waaye nag la ca des nag da koy néegi ëllëg ndax daa tëj aje wala walaaki yuwaqiruhumoo ila ajali musamman waaye den di néegi nag ba ca bis boobee nga xam nag kenn du ko ci rëcc su boobaa nag eh, loo jëf ak loo waxe loo fas lépp ñu fay la ko su rafete ak su ñaawee bokk na jikko yàq yooyu mooy ger gi ger ne mu tasaaroo ci ci àdduna tasaaroo ci réew mi tàmbale ca kaw am na ñenn ñuñ koy ñuñ koy jiiñ wala dañ caa gën a fees rek waaye yaatu na lool lool lool li ci réew mi te géeroo ca mu jàppande bariwut tayit ger dafa yàq am réew dafa yàq jikko gannaaw bu noonu lu yàlla xaraamal ba noppi ci ñi yéen saasam tudd rëbb leen fa innahu la anal waasilata wal mustawsilata wan wala ana aakila riba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidahu wala ana raashi wal wala ana al aaqi wala ana man dabaxa wala ana man xayara manaar al ard ak yeneen ak yeneen rëbb na kii jokk kawaram ak ka koy jokkal rëbb na kii jamu amtuñ ak ka ko jamal rëbb na kii lekk riba ak kam ko seqal ak ka ko bind ak ka ko seere rëbb na itam kay ger ak kamu ger rëbb na it kay dogoo ay waajuram mbaa mu may leen rëbb na ku rendi ci loo xam ne yàlla taxut fan yee weesu muy 31 décembre ak 24 ba bari na julli ñoo xam ne dañ dañ dañ koy dundal di ca feetu te loolu daganut ndax feetu ñeneen ñu ay julit la te ñoom day am nañ fu looju day ni sunuy koor ak sunuy tabaski ñoom duñ koy yëgal seen yaram kon waru waruñ ko woon a yëgal yaram ñoom ñun ñun te dañ noo digal ñu wóote ak ñoom ci lépp ab jullit waru ko dundal sunuy feet am nañ ko yooyu lislaam kon feetu yeneen diine ab jullit waru ko yëgal yaramam tabar ñu ci rendi waaye dañ jàpp ne ku ca rendi rek mook mbir dayam dañ ko bàyyi xel bu baax a baax rëbb na it kii soppi suuf maanaam ki nga xam ne ci misaal da nga den rek nit pàkk nga fexe ba tuxal borno ya ba jëli mètre wala meetar ci këram wala loo ci jël lu tuuti tuuti rek loolu mooy taxyiru manaaril ard wala da ngeen sas ay tool nga feex ba tuxal dig ba ba jël ay mètre wala mètre ci ci toolam loolu ba ba tey bokk na ci nga xam ne tudd nañ tudd nañ leen ci rëbbum yàlla yenn saa suñ tudd leen rëbbu leen ni ko noonu ak ñamee riba rawatina ci yenn commerçant yi nga xam ne ragaluñu yàlla lu ñëpp nag waaye ñenn ci ñoom ragaluñu yàlla ca la ñuy jaay koñ mën a nax nax la ñenn di jar la ñuy jaay ñenn da ca gar te jar mooy jaxase njaay ma lu ca bokkul ngir gën a bari sa sa bénéfice loolu dafa xaraam riba la man rachana fa lay séminaire li saa sama waxoon mooy képp koy jar bokkul ci noonu te su ma wa ahalla llaahu al-bay'a wa harrama riba yàlla daganal na jaay waaye nag xaraamal na riba njaay nag dafa jege ak riba lool moo tax mu tudd njaay daal tudd riba da caa yomb waaye su sellee nag liggéey bu ko gën a amut ndax li yonent bi saa sam waxoon ne attajiru saduqu ma annabiina wa siddiqina wa shuhadaai wa salihin commerçant bu dëggalee ëllëg bu dekkee njëgën ci nit ñi lay àndal yonent yi ak ñu baax ña ñu tëdd ak siddiqoon ak shuhadaa yi ñoom la ñoom lay àndal te ñoo ñoo gën ci nit ñi te la ko ca bool du jaamu yàlla maanaam du julli du woor waaye njaay mu sell rek moo ko moo ko loola waylul lil mutaffifin na commerçant yee ko moom su ma toskari ñeel na jaaykat yi nga xam ne suñuy pees lu jëm ci seen bopp di jënd dañuy dugal ay tappale ca poids ba ñuy peese bu dee kilo la dañuy fe dañuy dana ëpp kilo day mel ni kilo suñ lay jaay dugal ca tappale yoo xam ne day day daan mel na mën na kilo te boo ko peesewoon feneen mu manqué kilo mu ne xanaa dañoo jot ne duñ leen dekkal ëllëg bis penc ni tay ci sama kanam te waylun ibnu abbas nee na waylun aw xur la ci jahannam boo xam ne jahannam ci boppam day musuba aw xur ibnu abbas nee na waylun aw xur la ci jahannam boo xam ne jahannam ci boppam day muslu xur waylun kon day mel ni mooy dëkkukaayu kon commerçant yi nga xam ne sell luñ la ñuy jaay te fii nii li ne ci marché bi lépp mënee su ko wax bi ci topp mooy mooy ñàkk war ma gi xew li ma doon wax léegi ci la bokk Tuubaa dëkk ba am worma nañu sàmm worma ji waaye fi ne kenn wërmaalatul ko war a wormaal kenn wërmaalatul loo war a wormaal te Sëñ Tuubaa da daa wax ne eh, dafa wax ne Sëñ Tuubaa ñaar rek la ndaw war di ñaan dafa ne njub rek la ndaw war di ñaan loolu na rek la ndaw des na ko sàkku ci juróom wormaal ko mata wormaal wormaal lu mat a wormaal lu ne baax na nga def ko lu ne bon nga bàyyi ko tey ñaan yàlla tey yàlla mucc ni njubit des na ko sàkku ci juróom doo tooñ doo fayyu doo xëccoo lu ne jub na nga ne ce tey ñaan yàlla jub Sëñ ñaar yooyu rekk la ndaw war yitte war ko ñaan waaye wax na itam sabab yay tax nga mën nga àgg ca lam ca jiital nag ca lay tax a mucc daje warmaal ku mat a warmaal ak warmaal lu mat a warmaal nañ ko bàyyi xel baax te toll nañ jamono joo xam ne doom warmaaletul bàyyi taalube warmaaletul sëriñ rak warmaaletul mag soxna warmaaletul borom kër soo demee ci internet bi sunu sëriñ si nu gën a fonk ñi nu yaakaar aju ci ñoom lañ leen di yàq weñ wu ca tong de te liñ liñ liñ xame woon nag mooy war maalante kenn ku ne jàpp ne sa moroom la gën nga jox ko cër tal bokk na ci sun sun sun gànjar yi ëpp solo dañ koy bëgg ñàkk ndax lu bari lu ci bari mi ngi ruus léegi foo toog yàq fa sa moroom mooy fu toog yàq la fa ba ci lenn ci sëriñ si mel ni man nga xam ne yewuñu ab mosla ko day dikk ci yow yàq fa sa mbokk nga di ca bëgg xasal la sa mbokk di la yëkkati ci kawam nga di ca bëgg loolu musiba la eh, sëñ sëñ Mahmoudou Xarisi daa waxoon ne kilifa gu ne war naa am ci wetam mag mu dañu gu réer te amub reer naan soo ko amee sësali ci sa jëmm yaar lay seq yow mat naa def ak ëpp naa def gannaaw dañ nag réer lu lay lay wax ci xam-xam la koy teg gannaaw am na reer soxlaa lu dara doola jaay kon dëgg rek la lay wax mu teg ca waaye mag mu dañu tukk réer amutub reer soo ko sësali ci sa jëmm yaar lay seq yow man nga ko ak sañ nga ko kooku soo ko toppee yàqu te ka nga ëppal njariñ nag moo la moo la gën a mën a yàq la sëñ bay jaxat ne woon xarit nit ñi kenn mën la tax ñuy gërëm te kenn mën la tey ñuy gore dee ka jëw dañuy yekk dañuy lekk sa yëf de wax say ayib dafa leen yu rek ngir yàlla yow lu fi xew mooy xas te fi xew ak i fen kuy met di wax sa ayib suy beeg di wax loola saf loo xam ne lii gëmu ko kuy bëgg ci yow ne la yaa gën ñëpp saa su meree ci yow ni ñëpp la gën wax say ayib wane ko doo daw baraw ci mbirum ni maa ngi jël ngërëm moo ko moo tax defal la nga mën yow loo mënul bàyyi na sunu boom bool dimbale wala defal tawfiq xiir nu ci njub te saxal nu ci te def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nangul sunu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا الذي فضل شهر رجب وأوجب علينا تعظيمه فوجب أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره وأتوب إليه متوكلا عليه معتمدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين أبدا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وأحذركم عن الخطايا كي تنالوا الخيرات والهدى وأكثروا في هذا الشهر من الصيام وقوموا في ظلام الليل والناس نيام هنيئا لمن عمل وجد فيه مجتهدا ألم يان للأذن الصماء أن تسمع ألم يان للطرف الجامد أن يطمع ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يا هذا ألم تعلم أن رجبا أول شهور الفضائل جعله الله للخيرات موردا وفي الحديث inna duaa fi rajabin mustajab rabbana aatina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada الحمد لله الذي حض على التقوى ووصى وأحاط بكل شيء علما وأحصى وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم وأسرى بنبيه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى نحمده سبحانه وتعالى ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته فضائل لا تعد ولا تحصى أما بعد فالله الله عباد الله اتقوا الله وحافظوا رحمكم الله على الصلوات واعملوا الخير فإن خير أعمالكم الصلاة وإني أخشى علي وعليكم أن تكونوا ممن قال فيهم مقالا يتحظ به من كان قلبه حيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وفي الحديث الصلاة عماد الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين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 dalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa'u wallaahu zul fadlil aziim masalul lazina xammilu tawraata summa lam yaxmiluuha kamasalil ximaari yaxmilu asfaaraa biisa masalul qawmi lazina kazzabuu bi aayaati llaahi wallaahu laa yahdil qawma zaalimiin qul yaa ayyuhal lazina haaduu in zacamtum annakum awliyaa'u lillaahi min duuni nnaasi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 والله خير الرازقين الله الله أكبر سمع الله لمن تبارك الحمد الله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 الله أكبر الله أكبر asalaamaaleykum. asalaam.